ñuy xamal lan ñu njombe gi kay ak giraawaali gi bay boo nag ñu daal di kay séentu ay bés bi ñu daal di dëgmala yéen kay gii di libération mu ñu xamal ñu ndakaaru njaay ak woppi coronavirus ji daan na fiy bëri lool waaye nag am na ay gox yoo xamante ni fa la wopp ji ëppee fu si mel ni Parcelles Assainies ak Médina Wakam Yoff gox yooyu daal mooy gox yi nga xam ne woppi coronavirus ji daan nañu ko fay nemmeeku loola ndax lu toll nag ci ñaar fukk ak ñett ci ay cas grave principal yéen kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal nañu Sénégal jamono ji askan wi war nañoo def ndànk ci woppi coronavirus ndax li nga xam ne moom lañ gis ci ay bés bi dalul xel benn yoon ndax samedi ji ak dimanche ji lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróoma ci ay cas daat nañu ko fiy nemmeeku yéen kaay groupe Promo Consulting bi mu ñu xamal nañu moo taxit lu jëm ci état d'urgence bi daat nañu ko yokk ba ñaari fan ci weeru mai enquête yéen kaay moom mu xëy yóbbu ñu diiwaanu Touba foofee nag woppi coronavirus ji nga fay jaaba dafay bëri lool waaye nag li nga xam ne moo jaaxal waa kër docteur ana nan la ñuy def ak askan wi dëkk Touba ñenn si ñoom ba léegi nii gëmuñ ne woppi coronavirus daat nay am ñi nga xam ne ñoo ko jot xam sax ñooñu xamuñu nag yan matukaay la ñuy jël ba daal di moytu li nga xam ne mooy jàngoro ji marché Ocass bi nga xam ne gis nañ ne wopp ji daat na fay bëri loola ñu bari di ko fa wàllante ay lobby yu mag ñoo taxaw ngir nag jàppale waa marché Ocass ngir nag ñu daal di doxal seeni activité yéen kaay gi ñu fekk fa docteur Mamadou Dieng mi nga xam ne mooy médecin chef bu région bu Diourbel Diourbel la nee na nag kaa yu baree baree bari yoo xamante ni nag daat nañ koy dégg ci yenn gox ñoo ngi juge nag Touba ba tey ci biir journal bi di source amuñu xamal ñu ca diwaanu Touba ca Ndindi foofe nag dafa am benn soxna boo xamante ni ay atam toll na si juróom-ñeent fukki at ak ñaar moom nag dañoo njortu ne maanaam laale woon na ak téer bi nga xam ne moo amee woon woppi coronavirus loole nag taxoon ñu bëggoon a def ay prélèvement ci moom daal di koy quarantaine waaye nag ak njabootam ñoom dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa ca wàllu jàppante gu méttee métti seen diggante ak takk der yi ba sax am na ab gendarme boo xamante ni maanaam daan na say am ay gaañu gaañu yu méttee métti ndax ay ndaw ñoo leen daal di agressé ay xale yoo xamante ni daal dañoo violé woon li nga xam ne mooy couvre-feu bi ca nag caaro ya ñetti mbar bi nag takk der yi ñëwee di wax ak ñoom ci la jàppante daal di am yéen kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa docteur Malick Diop moom nag daat nay jubbanti ki nga xam ne mooy professeur Thioro waaye nag daat ni gëm na ne Covid 19 mbir la moo xamante ni mu doy waar la yéen a kaay gii di libération xëy wax ci Covid organique bi nga xamante ni Sénégal maanaam nag ma ngi xaar ay dose am ci semaine bii nga xamante ni moom la ñu daal di nekk ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr ministre bi ñu denk wàllum wér-gi-yaram gi moom tam di ko daal di dëggal ci l'observateur daan ne ay fan yu néew Sénégal nag dina daal di jot commande bi nga xam ne mooy jugee ca Madagascar yéen a gii de las mu ñu xamal naa fan yi nga xam ne moom la ñu génn doon ngeen dégg docteur Pape Moussa Thior doon wax ko bàyyi mu daal di circuler te ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur nañu bàyyi askan wi nga xam ne moom la ñuy tiital ci ay cas communautaire professeur Moussa Seydi moom nag daan na ci indi ay leeral daal di wax ne virus bi bu ñu ko bàyyee mu daal di circuler loole nag catastrophe musiba mabakumba gu rëy lay daal di jura yéen kaay gii di réew mi ko quotidien ci lu jëm ci covid 19 bi gàllankoor yi nga xam ne mën na kaa indi ci lu jëm ci wàllu mbay mi loole nag daat nay tax ministre bi ñu dénk wàllu woowu daal di wax ne état bu Sénégal daan na yokk ci budget bi lu toll si ñaar fukk ci ay milliards cinquante vingt mille tonnes yoo xamante ni daal nañu koy jox ñi nga xam ne ñooy opérateur économique yi loole nag professeur Moussa Baldé moo ko daal di xamle ci yéenekaay gii di réew mi quotidien yéenekaay gii di Les Échos moom mu xëy dikk ci li nga xamante ni mooy mbir mu doy waar ak leexuur goo xam ne dañoo njort ne dafa am ca Senelec te kaka fa def mooy si Cissé jamono ji nga xamante ni maanaam ma nga fu woon ndax dafa am nag ab centrale électrique virtuelle boo xamante ni dañu ko bëggoon a taxawal contrat ba nga xam ne moo jëm ca wàllu woowu nag Makhtar Cissé moo ko signé te nag Les Échos ñoom dañoo njort ne nag ak léexóor daf caa daa di am journal bii di Stades mu ñu xamalaan ñu Mbaye Niang jamono ji nag waa Marseille daa di nañ koy bëgg lool ngir nag mu daal leen di football la Kalidou Koulibaly moom jamono ji ñëpp ñoo ko teg bët teg si nag di ko daa di xëccoo journal bii di sunu làmb mu ñu xamalaan ñu fan yi nga xam ne moom la ñu daa di génn Thierno Ka mi nga xam ne mooy ànd ak Balla Gaye numéro 2 moom dafa waxoon na yàkkamte naa gis Balla Gaye 2 làpp ki nga xam ne mooy Boy Niang ñi nga xam ne nag ñoo fare ak Boy ki yor seen communication di Tafa Kandji daat nay wax ne li am ba des mooy Balla Gaye 2 munta duma benn yoon booy Niang 2 te li si kanam rawati bët bis bu combat bi taxawee kenn ku nekk dina xam sa morom